damay commencer d'abord ci wax len kan moy tier ki nga xamanteni mom moom filmé en mon insu dans sa voiture les gars Thier c'est quelqu'un bo xamanteni biñu xamanté ak mom ça date de 20 ans ñu séq façon terrain bu ne tenez-vous bien mu nek ko xamanteni ni na Kër à Kaolack pendant deux ans mu nekk koo xamante ni na kër Tantay Thiat ici à Thiaroye Azur pendant un an mu nekk koo xamante ni wax à mon insu il se permettait d'aller à Kaolack seeti gi sama yaay yendu fa des fois même fanaan fa suy ñibbi djel xaalis sax jox ko ne ko yaay booy sama ñaan la djel si won yow yaay sama sëriñ sama gaañi ki mooy ceer pour ngeen xam li ñu ak wala fiñu jaar ak mom kon ku mel nonu su fekente ni amna intention def lu bon wax deug yalla ay la yewon man munuma ko xam munuma ci am ñaaw njott parce que 20 ans du 1 an 20 ans du 5 ans la nek nak ca gannaaw cher bañu wara mëna tok ci auto pour mu enregistrer ma lolu lu ñuy peut-être après euh, ci poursuite dossier bi li tax mané damay def vidéo sous su contenu il y avait pas transaction d'argent du ma ci yëy yàbbi mais da ngeen gis ci début vidéo bi mu am une transaction d'argent transaction d'argent boobu li ko waral du lenn lu dul ñëpp xam nañ ma ci samay activité à part mon métier d'artiste damay bay damay jaay oto je suis dans l'élevage cher moomu ñu seq mbirum jaay oto mu gis sama ben auto mu bëgg mais malheureusement tombé suis d'accord ci prix bi mu sama Hyundai Veloster j'ai les papiers avec moi je finalement jaay ma bi sama jabar la koy jëndal mané ko amul problème bi mën na la ki defal d'accord ci 5 millions ah mu indil ma une avance de 2 millions bimba indi indilee avance 2 millions je tout 30 minutes woo ma dama suma sama carte et je dois 000 à quelqu'un Je suis wat nga abal ma 500000 bi mané ko d'accord mu ñëwaat ma jox ko 500000 bi garder les 1 million 500. film bobu ngeen di gis ci début bi bima togué ci auto bi ñu waxtaan plané entre copains mu yëkëti 3 millions jox mako pour le reliquat n'a ma li la mané ko 3 li nek feulé ñaata la mané ko 1 5 mu ne ma muy ñaata mané ko 4 5 mu dess ñaata mané ko 500000 donc vidéo bi léral na bopam kon gis ngeen ko waye juste que ni comme dafa indi won jixi jaxa ci transaction khalis euh, bi il fallait vraiment dire à vous les sénégalais que ni transaction d'argent bi li moy li ko wundu li moy li ko waral pas autre chose waye se site pourri bi nga xamanteni mom mo vidéo bi am lum ca dag automatiquement dugal affaire bi ci visa bi nga xamanteni man ak sama xarit bobu seq nañ ko une aide pour évacuer son enfant bu war en France ah ay way man je pense que ni Jambour sax dégg ngeen ni kilifa taxawu nako assister nako na ko ba keroog yàlla di defal jàmbaam ci ay besoin Qui n'a pas un ami bo xamante ñew na solliciter la nga aidé ko automatiquement sur la vidéo la même vidéo gis ngeen mo ma jël suma téléphone commencer woo sama ay njegeñaale pour laaj leen le numéro du consul pour trouver un rendez-vous d'urgence un rendez-vous officiel d'urgence ah gars ça je pense que ni ku nekk ci visa wala un visa tu vas pas appeler le consul et tu vas pas trouver un rendez-vous avec le consul Bon, demain tu consul bi pas consul jaay mo visa